commune bu Thiamène Kayor moom nekk fële ca Louga te am lu toll ci juróom fukk ak ñaar ci ay village daanaka benn poste de santé képp la ab ngir askan wi yëpp te ñoom askan wi ci boppam dañoo gis ni poste de santé boobu boobule daanaka dara amu fa amul ambulance euh, teg ci euh, bu ñu bëggee kon yóbbu ñi feebar ci beneen diwaan day nekk lu jafe ci ñoom ay ndaw booloo ci benn association ñoom ñoo dajaloo di wax jafe-jafe ñuy dund ak yenn saafara lañ ci dañ ciy déglu Aliou Lo Diallo ko Thierno Fall. boo gisee tey Thiamène commune bi nga xam ne tey ngi 52 villages ñi ngi taxawal benn poste de santé en 1976 poste de santé ba léegi ambulance bi fi nekkoon bi mu yàqoo ba il y a 10 ans amuñu ambulance. kokki lay ambulance di mën a jóge di mëna ñëw ba caameen di mëna yobbu maladie té des fois buñ ko wooyee ak retardement ak tali bi ni mu mel. benen affaire bi moy am nañ problème d'équipement et de personnel. benen problème bi ñu amat ci walu caameen bi moy côté ndox bi non seulement l'eau n'est pas potable ndox mi ñu naan selul ba paré benen affaire moy yokkan nañ mètre cube bi à 300 francs ba paré taguñu sans consentement population bi. ku xam tay Thiamène dafa enclavé wu ndax tali bi ñëpp xam na tay route bi demewul nonu baxul ñëpp teg nañ ci seen bët té tali bi li mu baxul ñak baña a baax bi man na causer aussi ay dégâts nañ ko wax ndax.